wasallam waaye dafa déggoon dafa nekkoon jigéen ju discrète Abdou Saliou <laughs> daan na ñëw mu wax ma wax ni ma Mouhamed maa ngi lay wax nangam bii de waaye na yem ci suñu diggante ñun ñaar wallahi yàlla seede na ko mhm. bu ma ñëwee yenn saa yi mu wax ma ci waali ni ma nangam bi ak nangam bi waaye na suñu diggante de man ko yow sama yaay nga sama féete nga yenn saa yi ma ñëw mu wax ma benn gént <clears throat> yenn saa yi waali def benn geste mu laaj ma ma ni ko nangam du yàgg tuuti waali def loolu rek mu ma téléphone même bu dara amee bu dara amee xam nga téléphone moom du fen mm-hmm. même bu dara amee loo xamante ni nit ñi ñu ngi ciy mbamb sax dina ni ma xoolal vidéo nangam bi lan nga ci xalaat yaakaar naa yàgg naa la ko woon. Mm-hmm. am na bés boo xamante ni Wally dafa doon def euh, xaw ma soirée la xaw ma am ay jigéen yu dugg solo nag daf ma yónnee vidéo yi ni ma ni ma xoolal réaction Wally ni ma ni ma xoolal kanamam affaire yi sax daf ko bett yàlla seede na ko yónnee ma vidéo yi. Mm-hmm. ma ne ko li li li waykat ba wayoon moo ci nekk nit ku lay wut jéem-jéem jotu la day xool fi la gën a jege mu jaare fa yàqal la. Mm-hmm. ma ne ko yooyu la rek waaye àdduna moom moo ni mel. Mm-hmm. ndax kuy dund faw ngay dégg. te yonent bi dafa waxoon ni fa inna kullu zi ni'matin maxsuuda borom teraanga boo gis dañ koy iñaane. mais Abdou Saliou ku bëgg yonent bi dem na. ku bëgg yonent bi. rangooñam bi mu mujjee génn lii ma lay wax nii. Cheikh Sarr dafa jóge umra ma nekk kër ga mu tombeek aljuma juste Cheikh di moo am lu ñuy wax man ko pourtant maa ngi ni toog ak sama yaay nii aljuma ju jot ñoom ñëpp xamoon suñu féete man ak moom mm-hmm. mu ne ma jox ma seex ma ziar ko waaye Mouhamed ma jox ko seex Sarr Cheikh di wax ak moom di wax ak moom ba ci yàgg muy jooy jooy bay dóor tànk yi ba Mouhamed doomam daa daw ne ma ah waa yow lu xew ak sa yaay ma ne ko sama yaay daal Cheikh Sarr laa ko jox léegi rek Cheikh di ko wax melokaanu Medinatul Munawara moom loo ko mën a defal ci adduna loo ko mën a defal ci àdduna Abdou Saliou ah amul lu gën a rëy nga wax ko yonent bi sànq-sànq rek maa bi ma demee Medinatul Munawara mhm. ma def benn ma ma defal ko vidéo mhm. ni ko maa ngi nii ci raw rawdu sa soppe mhm. maa ngi nii rawdu ci sa xarit mais li ma wax dafa ne ma mosoo maa defal ci àdduna mosoo maa defal ci adduna lu gën a rëy lii nga ma defal sànq-sànq rek li gars yi nag yenn saa yi dañ naan lu tax nit gaañu lu tax nangam mais nit bu gaañoo uskuru mahasina mawtaakum génne leen yi mu gën a rafetle mm-hmm. ngeen wax ko mm-hmm. ñu toog ma yónnee ko vidéo bi ni ko maa ngi Medina maa ngi lay ñaanal sa cofel ci yonent bi maa ngi lay ñaanal sa cofel ci sa njaboot vidéo bi nañ ko bokk sa ko yéenee nit boo ko mu ci jot yow la a sédd defal mo lu rëy de wax dëgg yàlla lu rëy rëy rëy rëy mënu ko defal leen lu dul lii lu ëpp lii kontaan naa yàlla yàlla kontaan fi ma nekk nii xam naa su ma wootee lii la ma iya, yónnee ko nga di jënd saabu du ci yam mais ñi mu xamul muy jël engagement wu di leen sang ci sangi nii gën a yiw sangi nii gën a xam nga ni kooku du nettali sang leen laxas leen tek leen ci alalam sotti leen parfum xaalisam génn dem yoonam Abdou Saliou daan naa toog ba ci yàgg mu ma foo nekk ma ne ko damaa génn yaay mu ne ma xoolal tourné léegi nga ñëw dama bëgg ñu daal di dem euh, prison bi nekk fii bi nekk euh, Liberté 6. Camp pénal ñi fa ne xam nañ ma bu baax a baax. ndànk nag la ma danaan ma discret de Mouhamed yow mba àndoo kenn man ko yaay man kese la mu ne ma ñëwul ñu dem Camp gaaw ma am teraanga yu ma fa yóbbu ñu àndandoo ñun ñaar yàlla xam na ko dugg biir Camp mu jël teraanga yu bare bare bare joxe ba bi nu fa mujjee dugg yàggul dañ ko fa tuddee bés bés boo xamante ni ñoom Bécaye Mbaye ñu dégg euh, doomu Bécaye Mbaye beeg euh, ba ba waa ji nekk euh, Walfadjri def journal sax jooy na fa jooyu métti métti métti métti métti bitey mm-hmm. ndax lan cofeel bi ñu am ci moom lam fay ñi léeg-léeg dañu naan dina am ndono mais liy jóge ci xol ak li nit di roy du doon benn mm-hmm. loolu ay jaamu yàlla yoo xamante ni jomb na lekk jomb na naan di leen bàyyi bu nu ko ñàkkee ci mbaaxam te ñàkkuñu ko sax ndax biir bàmmeel yére la rek li gën a sell la ñu waxaloon muumi rek mooy ku dundu ci sutura jaaga kenn xamalu ko dara doo ko dégg ci détail doo ko dégg ci ay wax xoolal fi mu jaar ak fi doomam jaar ak fi borom këram jaar nga xam ne doy na mu tiitaru suba ak ngoon gu dégg ba cëg mais mosoo ko dégg ci détail mos na dégg jaaga tontu jaaga boo ko gisee ci vidéo rek day wax ci Wally Seck mm-hmm. waxal waali mbaaxam ah wala mu ñaanal doomam te nag Abdou yàlla moom moom jaam ñi mais at mii moom metti na ci ñoom at mii moom metti na ba fa metti metti metti metti yam parce que man démb rek ci aljuma ji damay tourner juste kër Thione Seck may déggante ak Mouhamed fekk doomam ñu am lu ñu doon wax biñ ma njëkkee tàggee déegi rek moom laa njëkk a waxal téléphone mais ma gis yar bi may wax bés bu nekk ni Thione yare ay doomam mën nga am xam-xam ba jeexal téere te mënoo ko yore sanjaboot may sentir tolérance bi nekk ci Mouhamed waxam dalam Mouhamed waaw euh, mënul ñàkk nit ñi yëg ko ndax sunu maam rek lañ doon xalaat mu yëg ko te te wax nañ ko ko mu yaayu jaaga. mun ma wax nañ ko ko ñu si des mën nañ ko yëg ak yooyu wax ma ci yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne da xam ne ñii ay nit yu nu yar lanu mhm. ay nit yu nu teral lanu waaye boo xoolee Abdou ci yonent bi fi mu jaar. bi mu amee ñaari weer ci biiru yaayam ci la ñàkk baayam. Mhm. bi mu amee juróom benni at yonent bi ci la ñàkk yaayam. bi mu amee juróom-ñetti xale bu am juróom-ñetti ñàkk yaay ñàkk baay ñàkk maam amoo mag bu góor amoo rakk bu góor amoo mag bu jigéen amoo rakk bu jigéen benn doom nga kooku bu ko yàlla sàmmee ba def ko yonent ba mission dox kenn ku nekk yàlla pare na ci yow démb tey soog a ñëw kon yàlla yàlla xare ko aljana te am nañu ci ya wallahi am nañu ci yaakaar bu fekkente ni abdu cofeelu yonent bi ci nit dëgg la aljana am na gan tey bu fekkente ni laax cofeelu nit ñaar ñii laa xam ne vidéo bu ma am ci yonent bi nit bu leen ko njëkk jot bu ma waxtaanee yonent bi moom mooy njëkk a jot vidéo bi bu ma ko jotee wala ma yónnee ko Balla Gaye vidéo xoolal yàlla li mu def li may wax ni du weeru rajab lañ nekk vidéo bu ma mujjee waxtaane rajab Abdou Saliou mooy bu ma mujjee yónnee meer xoolal xoolal kañ laa ko ko yónnee boo defee nii pour wax la sama sama sama xarit la sama confidente la Abdou gis nga xoolal le 17 décembre laa ko mujjee yónnee vidéo bu may wax ci yonent bi weeru rajab ci la génn àdduna te weeru rajab bii laa doon waxtaane ci yonent bi bi muy jëli julli ma yónnee ko déggoo ma de weeru rajab laay waxtaane bi yonent bi di jëli julli allahu akbar ma yónnee ko ko 17 décembre weeru rajab ci la génn àdduna yow sax xale yi xale yi ñàkk nañ waaye yow tamit ñàkk nga euh, tey euh, lan moo mën a forger ki nga xamante ni moo di Wally parce que euh, ni mu demee mu ñàkk wasilaam ñàkk ki nga xamante ni moo di papaam ñàkk ki nga xamante ni moo di magam tey mu ñu ñu annoncé ko yaayam. waaye yow yow yow mi yow mi ak moom dara Abdou yaa ngi ko sa xol ba sa bët mu ngi taa. di mënoo laaj waaw yow mi ci mel noonu waaw moom mi nga xamante ni waaye juróom la te coon sekk ay doomam da leen yar yar boo xam ne ñoom seen biir kenn du dugg. Mm-hmm. waxin la nag mooy ñoom dañoo kolewu dañu and dañu doon Ben. ñoom réeroo amul ci seen biir ñoomi neen la waaw ñoñu tay bu nu ñàkkee benn monument muy seen bay ñu doxal at yu neew ñu ñakkat benen monument tay tay day metti ci wali nak parce que budul won bayam yaayam la budul yaayam mumi mumi dem bu yagul mu bës xolam dem eggali contrat jambour nga ñew même pas un an ben at parce que ben at nga mëna wax parce que 2023 ak 2024 ay wër la ñen fukki guddii yàggul ci la maire dellu maire ñeent fukki guddi la dellu France ñu déggante fi mu ñëwaat tuuti rek dem delluwaat mooy feebaram tey Wally ñàkkaat ku mel noonu nekk xale ak coow yi dal ci kawam ak mu nekk jàmbaar du tontu te teraanga yi ñi muy àndal ci lii lañ nekk te fii ak weer lu ci def ñu ne deew yaayam safu ko fii ak ñaari weer lu fi def ñu ni deew yaayam safu ko fii ak at lu mu fi def ñu ni deew yaayam safu ko Abdou yooyu ngay xalaat ni muy méttee ci nit ki te yéen fréquenté wu leen kër googu mais boo duggee kër googu ngay xam ni jaaga mooy jàmbaar ñaata nit la jaaga doon dundal ñoo xamante ni dëkkuñu ci kër gi dafa am loo xam ne mënu ma ko nettali ci ci ci média mais nga xam ni nitu sutura am benn waay bu def benn affaire benn jour ci kër gi juste ma fekkee ko man ajjuma fu ma génnee tere rek damay dem añi ji ak meer ajjuma fu ma génnee rek maa ngi wane euh, maa ngi def esthétique benn vidéo boo xam ne juste fekk doom ji dem ziare ji coon day jaar ci yaayam tàllal ko loxo vidéo bi aljuma la tombeel même pas aljuma ma dem ñëw fekk nit doom ji jóge gis nga dem zi jaale ji euh, euh, ziyaare ji papam bi mu ñu bisee muy bintu day sukk jox yaayam bopp yaayam ñaanal ko ñuy waxtaan benn bis bint ñëw indil ko ay ay ceeb yu bari teraanga yu bari mu ne ma Mouhamed euh, jigéen ñi nañu muñ jaay naa la mu or ndax bëgg a dundal sama njaboot bint mi magu fi mais xoolal li ma indil ci rabitaay ma tey yaa ci yem te ravitaillement bi xam nga ne xajul ci kër gi ñeneen ak ñeneen mën na cee dund waaye jigéen ju nekk lii la waroon ñaan ci këram dem ba njabootam di ko defal lii mu ne ma li koy maye nag mooy toog muñ mu metti mu neex tey bu ma jaayoon benn or li muy indi moom sama njaboot ëpp na ay or. Mhm. mission mat na jeex na dem na waaye xam naa ni bu duggee ci biir bàmmeel buñ ko wanoon jëm yonent bi ni ko kii kan la mu ne sama waajaa ngi nii jaaga booy wax yonent bi muy jooy. déggoo vocal bi ma la tegal. dama dugg Medina moom laa xalaat. man ko yaay dama ko appel vidéo sax jotuma ko ma wàcceel ko vocal ma ma yónnee ko vidéo ni ko yaay maa ngi ni ci sa kanamu soppe bi ziyaare ziyaare si naa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu jox ma kaalis bu ma kenn joxul Mouhamed bu ko wax de nit ñi dañoo xaw a doy waar sama nganeele noonu bis bi ma amee doom bu góor ma ne ko yaay soxna si am na doom bu góor mu ne ah ci sama waa ji Mouhamed daal sunu waa ji amul morom waa ji daal am na fi tërandoo nii rek wallahi xola ci saasi saasi mu génne deux cent cinquante mille ni ma njëgu meew moom du wax sama soppe de suñu tërandoo rek la wax yonent bi njëgu meewu suñu tërandoo ngi noonu deux cent cinquante mille yi jëndaleel jëndaleel ma ko tërandoo yonent bi meew ba mu xam ni man ak moom dinañu jàkkaarloo kooku nag yonent bi la am am na bés euh, ma dugg ci biir kër gi noonu ñu am lu ñuy waxtaane rek Alioune euh, li may ni dañu may seetaan ñoom njaboot gi euh, Mouhamed wàcc ñuy waxtaan ci yonente bi mu ne ma man lenn mooy naqari sama jour mohammed mooy ma dem ci benn tudd toog di xaar ñu tuddee doom ji keneen ko dul yonente bi doomu coon laax de mohammed mu ne bu ma demee ci tudd gis doom ji ñu tuddee ko keneen ko dul yonente bi sama jour journée day yàqu ndax cofeel boobu tey tey tey tey ñëpp dañoo waaru ñu doon waajal ñu nekkoon ñoo xam ne dañ doon waajal seen bopp laay semaine bii passé laa dem fi ñu fi ñu fi ñu fi ñu jullee muumi Mm-hmm. imaam bi daf ma ràññee ràññee ba bi ñuy waxaat la naan ma njabootu coon sekk gi xolal fajar gi fii lañ koy jullisee mu ne ma lu seen bàyyi doon def dañ koy def du ma réeroo ak ñoom jour anniversaire Alioune aljuma la tombeel maa njëkk a def vidéo ci biir kër gi la ma fekk mu génn ñaari jàllaa bi may ma ko bu dee yaa ngi doon xool ba may tooñ di ma booleeg benn xaj bu ne woon foofu di ma laaj làmb ji koo faral ma naan ko ma koy tooñ naan ko noonu Modou Lo laa ngay faral boo xaj ñëw ma ne ko maa ngi ci amaa. kon yaakaar naa ni euh, kër googu am naa fa am naa fa am naa fa tur. Mhm. ci sama diggante ak ñoom. li ko waral du oustaz Mouhamed Mbaye mu seen TV déedéet li ko waral mooy kii missionnaire yonent bi la yor. Mhm. yenn saa yi damay toog ba ci ak mu ne Mouhamed euh, euh, yonent bi bi mu tollee fi lu xew. ma ne ko yaay nangam ak nangam moo xew mu ne ma ci kenn du sama waa ji. ndeysaan ibbi posetam bu ndawee ba ndaw ci yonent bi mu jox ma cent mille francs bu ma ñëwee damay romb rek nuyoo ñun ñaar ñu toog ba añ jot ñu añ ñun ñaar naan ataaya. lek-lek ma jitu ko julli takusan ba pare këram bu ma jógee jumaa ja di yeewee ko koku nak wallahi yonenti bi amna gan coon cion am amna gan mumi amna gan wallahi yalla xamna ko yonenti bi amna gan gu mag maga maga mag gis nga bu li alquran man amila salihan fali nafsihi ku def lu bax yalla fayla mhm. mu ngi fekk ay néew yo xamanteni dinañ wax ni jigen ji moñu don sang kii moo ñu laxas ci teraangam te yàlla nag naa la xamal dara de mbër yàlla du la làmb mbalaanu sutura ba kenn xamul ci yow lu dul lu baax yàlla woo la ci moom ba nga ñëw muy jëflante ak yow leneen yàlla jomb na loolu. yàlla na yàlla xare ko aljana waaye ñeewante naa waali wallaahi ñeewante naa ko ñeewante naa ko bu baax a baax a baax a baax a baax ñeewante naa ko bu baax baax baax a baax parce que yaayam dafa nekkoon baaraasam mu rus yaayam jot ci. waali balamu muy bég daw ñew ci yaayam gis nga mbiri du legi Abdou saliw tabaski lay metti papa baña gi seen yaay baña gi seen mak ñom rek ñu ne ci kër gi yoy ñoy metti bis yoyu nga xamni bis la yo xamni leen di manké ba dara dootu leen neex bisu feet yoyu bisu wéttali konté yoyu ngay xamanteni ni dafa metti te jaaga dafa jambar ci njabotam li ma leex nii du léegi de mais ñu dem ba tabaski jot nga xool ni mu daan taxawee xoolal buy ñaanal waali ci dënd bi lay jóge billaahi lay wax doo torox di ko ñaanal ba xoolal daaw la tombeel tabaski daaw xoolal tabaski ren di ko fekk mu fekk Papa John Seck yal na yàlla xare ko aljana yal na yal na foofu di noflaayam yal na réccu lu mu fi doon yàggee wallahi yonent bi am na gan li ma lay wax nii sama xol laa ko tibbee yonent bi am na gan gu mag a mag a mag a mag a mag yonent bi dafa ni maxtulita xubbi fii qalbi ahadin ilaa wa xarama allahu jasaduhu min an naar yonent bi nee na bépp xol bu ma sopp yaram ba ëmb xol boobu araam na safara bépp xol laa la wax bu ma sopp yaram ba ëmb xol boobu araam na safara waaw léegi xolal ni mu meloon ci yonent bi ñàkk sago ci moom bu Abdou Saliou jooyee di xalaat li ko naqari yéen du ngeen xam jàngat bi may wax ci njabootam gi nu ñu ne dañoo nekk ay xale dañoo dugg ci benn cirque boo xamante ni cirque coow la doo ci dégg yenn détails yi seen yaay nekk jigéen ju mat ba kaare lu waay daw daw daw boo ñëwee ba ci catu pied kër gi di nga xam noo fay duggee bi may daanelee mooy ku ne war ngaa oyof ku ne war ngaa wàcc li coon sekk tabax ni mu toll nekkul mag réaliser ko dëkki ko yàggul mu dem njabootam a taxoon mu tabax ko ak soxnaam soxna si ba fi kër gi coon sekk ba fi kër gi ay njaboot yu ndaw des fi ma ne kon ku mu doon ci àdduna loo mën a yor ci àdduna war ngaa wàcc sa bopp xam ni loo fi loo fi gis day jeex coon way na ko ba tàyyi way na mbaaxu jaaga ba tàyyi tey papa coon ngay wax mu ngi ci biir bàmmeelu almeeru yoo fi tey ana ana ana ana ana jaaga mu ngi ci biir almeeru yoo fi ngay xam ni lépp nettali lay mujje yàlla na yàlla xare ko aljana ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam